waaw tey bis bu sell la ndax tey mooy bisu tabaski euh, umma islam yi yëpp foo dem euh, ñu ngi julli buñ jullee ba pare euh, def li nga xamante ni mooy farata bi tey nag ñu ngi fii ci yoof ci jàmmalaay ànd ak préfet ànd ak sous-préfet ànd ak maire ànd ak suñu xarit Abdoulaye Diouf Sarr ànd ak tamit euh, antu Samb ànd ak tamit ki nga xam ne mooy euh, Danfaxa Ansoumana Danfaxa président yónni ñu fii euh, xutba bi ñu déglu tey am na solo imaam Libaas lay daal di ñu koy baaxe mën nañ ci jàpp ñaari fànn bi ci njëkk mooy kilifa nan la war a dundee ak njabootam njabootam nag mooy ay soxnaam mooy ay doomam ci ni muy dundeek ñoom ëllëg suñu borom dina ko ko laaj te suñu boroom moom amul xarit la nga liggéey rek nga fay fekk bu fekkee nam la waxoon nga yor sa njaboot yar leen ci lislaam jàngal leen jub jàngal leen euh, tàttagal leen ci liggéey euh, naka si noonu kasalika naka noonu ci say soxna bu boobaa euh, yiw ak xéewal rek ngay am foofu wante boo négligé aspect yooyu bu boobaa mbugal moo la fay fekk donc loolu message la bu ñu lancé ci biir kër yi wante dafa génn kër yi léegi nag dugg ci société bi maanaam wax nan la ñuy yore réew nan la ñuy yore euh, ministère nan la ñuy yore maire yi euh, wax ni tamit nit bala nga laaj yooyu war nga seetaat sa bopp bu dee attan nga ko nga laaj ko ñu jox la ko nga liggéeyal askan boo ko mënul it attanoo ko bul ko wut ci fitna. bul ko wut ci tuur deret bul ko wut ci loo xam ni day sonal askan wi bu boobaa nga xam ni mënoo ko nga bàyyi donc loolu tamit jàngat la ndax ëllëg it njiit yëpp lañuy laaj naka lañ yore woon lañ leen dénk bu dee lu baax la lu baax nga fay am bu dee lu bon la lu bon nga fay am saisir nañ tamit occasion bi pour lancer message au président Macky Sall ci wàllu jamono fi ñu tollu ak crise yi ñuy dund bi ci njëkk moo doon Covid 19 bi yàlla def na wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax a baax wante nañ ko bàyyi xel ñaareel bi mooy la xew fële ca Russie ak Ukraine nga xam ni dafa impacté suñu suñu nekkin ci wàllu jafe-jafe ci dund bi ci wàllu jafe-jafe ci énergie ci wàllu jafe-jafe ci yu baree bare ba nga xam ni président Macky Sall dafa obligé jël ay mesures ngir bañ dangaru crise boobu am lu euh, euh, difficulté yu mu indil euh, askan wi moo tax mu jël xam ngeen ko suivre ngeen ko lu toll ak juróomi téeméeri milliards la ñuy dugal ci électricité pour que courant bi nit ñi mën a bañ a fay lu lu metti lu ëpp 157 milliards la ñuy dugal ci dund bi pour atténuer ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ay mesures looloo taxoon mu dem ba ba Russie toog ak Poutine président Poutine ni ko nag guerre bi ñu ngi leen di ñaan ngeen arrêté ko wala boo ngeen ubbi poor yi céréales yi ñuy dundee mën a ñëw ñu dal mbir mi dal loolu tamit message boobu wax nañ ko fi ñaan euh, imam Libaas mu ñaan jàmm jooju dellu si ci addina bi ndax lépp lu xew ci àddina bi du yem fa mu fa mu fa mu fa mu fa cosaanoo ndax ay du yem ci boroomam donc loolu tamit message bu am solo la président Macky Sall waxoon pour ñu indi ko bi ci bi ñuy jeexale rek mooy euh, fi ñu jublu xam nga ni tey la ñu démarré officiellement campagne électorale pour les législatives loolu it président wax na ñu ñaan dal nit ñi mën nañoo wut ndax démocratie moo bindoo noonu mais jarul xuloo jarul ŋaayoo jarul tour deret jarul toj këru jàmbur ku nekk na nga respecté jaay sa programme bu ñu demee ba ca pandaw ja muy fanweeri fan ak benn ci weer wi askan wi décider lu ñu de lu ñu décider ñëpp àndu ci wante lépp daal ñu ngi koy ñaan mu nekk ci dal ba le 31 au soir le premier moo ci topp le premier ñëpp xëy Sénégal am nekk ci jàmm ak salaam loolu daal mën nañu tënk ni moom la ñu jàngat tey ci bis bu sell fii bii ci jàmmalaay